waaw xanaa soxna Aïcha di ko naqarlu rek parce que li xew démb vraiment képp kuy sénégalais wala ngay jullit métti na la parce que Sénégal léegi ni ñu ko commencé gis vraiment kenn rafetluwu ko parce que lu toll ne peut-être bus liñ ci wax ak li am ak li ñu gis ci ay images li ñu dégg ci ay kàddu mais nag ci biir kàddu yi ñu ngi ci gis lu in ay incohérence parce que gis naa benn dame ñu génn mu ne bi ñu ko interroger mu wax publiquement ci defe naa ci euh, kii yu ñu ko invité yu ñu ko jox micro mu ne moom ci ñu euh, gaaw na génn ci bus bi parce que bus bi ba fa commencé tàkk rek mu daw génn mais amul blessé ma jékki-jékki après déggaat ñu ne am na blessé am na ay mort kon loolu moom bu dee mort am na ci te mu nekk dëgg franchement ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla yërëm leen yàlla xaare leen àjjana li may wax nag peut-être benn quoi moo nekk sama bopp instant bi parce que dama gis benn chauffeur ñu ne mooy chauffeuru bus bi ma gis réseaux sociaux yëpp ñu ne waa ji policier la ba ne polisu euh, Point E fa la nekk ba wone ay image image yi ñu wone dañ ci wone ne waa ji policier la wone sax fu mu solee tenue xaw ma nag c'est des fabrications xaw ma nu mu mënti demee mais mu ngi kii ci réseaux sociaux yi ñu gis ko tamit foo xam ne ne taxaw naa ak Antoine John ci image yi dama xamul loolu bu dee am na xontu la. mais yenn image image démb yi. non waxuma image yu démb yi. Ah, maanaam image yu chauffeur bi ci boppam. dama gis ñu wone ko fu mu solee tenue ñu montré ko di ko won ci réseaux sociaux yi ba ne policier la bu nekk yow image yooyu da ko gëm yi nga gis ci réseaux sociaux yi waaw mais bien sûr gëm ak ñàkk gëm image la am na walla amul lan ngeen ñu bëgg a wax foofu lan ngeen ni ruumandaat ci suuf non ruumandaatuñ de ruumandaatuñ dara dama ne am na ay image yu ñu won am na wala amul ñay gëstu ñoo ñuy wax na ne am na wala amul d'accord mais mais exemple mën naa poser benn vite fait ce que euh, Diagne jàppoo ni période bii nga xamante ne ñëpp gis nañ ni bis bi tàkk wax nañ ne am na ñaari mort am ñoo xam ne dañu si blessé est-ce que aujourd'hui priorité bi waru woon nekk massawu ñi nga xamante ne dañ si gaañu ak période trouble bi nga xamante moo si nekk pour woote dal que susciter yeneen polémique ah déedéet dama ne man massawu nañ mais dama ne am na ay image yu ñuy wan maanaam liñ ñu bëgg dugal ak liñ ñu bëgg imposé xam nga dañu ne mbir mu terroriste la ñuy wax bu ñu fàttee ne dafa am ay. terroriste waa defal ndànk defal ndànk acte terroriste ça ne veut pas dire ne yow mën na la terroriste nga terroriste nga imam Alioune ndaw jàpp nañ ko fi des années deux ans xaw ma trois ans ne terroriste bu mag la. yore ay non déglu mu yore fi ay téléphone satelit wax lu nekk biñ demee ba ci biir dañ ko génne acquitté ko ne deful dara. c'est deux cas différents bokkul. waa déedéet maanaam mot terroriste. il faut pas nii liste non non non mot terroriste laa ah, les mots qu'on utilise. alors alors alors Diagne Diagne euh, les mots ont leur sens ci contexte bi ñu ko utiliser c'est-à-dire li xew démb beaucoup l'ont qualifié d'acte criminel d'acte terroriste c'est-à-dire ce sont les faits donc mooy ci fait bi am foofu la am sens.